jamm rek rek rek rek rek moy ubbe su ne woon ci lenen mom sax du lako wax lay comprendre oo lay sama gaañin nga mais du lepp la la mën wax ba nga duggé ci kër gi la sama jamm jeexoon fekk génnoo kër gi duma am jamm négé bu fekkon nga waron mel na nga waron na mel dégg sama ndigal négé tànk bo teggi teg ko ci do ay ilaha illallah ay doom xanaa danga maa bëgg sa gërum biir si awa gay kay bu ci desee nga bàyyi ko. yow fa ne ko bëri bi. ah damaa demoon marché. yow marché nga demoon wala kon foo jaawa. yi nga naan loo bëgg a wax foofu. su ma nekkee ci bànneex di ko yëg waaye su ma nekkee ci naqar mënumaa ñëw fi di la ko nettali yàlla inna lillahi wa inna ilayhi. wuy sama ndey. non mais Sophie waxal. ii. mu ngi doon gis ndaw. ii.